salaamaaleykum ah euh, waa àdduna salaamaaleykum waa Sardec salaamaaleykum foire départementale de Kër Massar te ñu ngi fii ci Malika Saint terrain Sonatel macha allah ñëw nag euh, toog ki nga xamante ni macha allah di liggéey liggéey bu mucc ayib. démarré ci li nga xamante nag di ànd ak ñun ci événement yi nga xamante ni mi ngi faral di am ci li nga xamante ni mooy élevage. li ci marqué li nga xamante ni mooy empreinte am tey ku ñëw fii ci foire bi da naan ah, couloir de la mode su nee fan la kenn dootu ko laajte ñu commencé ko ràññee nag bu baax a baax ci li nga xamante ni mooy élevage bi ci liggéey bu mucc ayib nag yëre yu doy waar yoo xamante ni éleveur bu ko sol di nga xam ne fii nag nga jaar mooy couloir de la mode avant ñuy dem fenn dañuy ñëw rek nuyoog moom mu jox ñu tur bi jox ñu sant bi jox ñu fi nga xam te ni mooy adresse bi doom lay ñu ngi lay ziar bu baax di rafetlu bu baax a baax ci ànd ak bi nga ànd ak ñun ci élevage bi par rapport ak li nga xam ne indi nga ko muy mod bu bees ci li nga xam te ni mooy élevage laanum euh, ku baax maa ngi lay fay di nuyu téléspectateur ngalam tv yëpp di leen gërëm aussi si maanaam yëg-yëg bi ngeen am ba ñëw pour defal ma émission euh, man maa ngi tudd Edouard Silla dëkk Saint-Louis di PDG de la marque Couloir de la Motte en même temps aussi di éleveur euh, vu que nak ñun dañu amuñu leneen lu élevage ñu ni manam suñ naré innover fenen dañuy ñëw innover ci biir élevage lolu tax ñu def l'élevage et la mode. la mode machallah élevage de la mode mu nekk lu am solo ñu contente ci lool diko rafetlu. Euh, dem bu barki dem ma ci waxtaan kam moy arama Adama Diouf mu ne ma bayil xel fi nga xamanteni moy couloir de la mode mu ñëw fi ci la fi ñëw xol càmbar gis fi nga fi liggey liggey bu mu ci ayib. li nga xamante ni mooy xalaat bi ñu koy rafetlu bu baax a baax xalaat bi mooy lan nga nekk éleveur en tant que éleveur am xalaat bu bees am li nga xamante ni rafle woon nañ ko ci am mooy axlu élevage ñëw foire fekk fa ñaw yoo xamante ni ñaw africain la mu nekk lu doy waar tey xalaat boobu ndax mën nga ñu wax partage ak ñun fan nga ko jëlee ba xam ne lii xaj na ci élevage pour ñëw ànd ak ñun boolekaat élevage bi. waaw non xalaat boobu en soo xoolee parce que ma bokk à association bu nekkoon Saint-Louis un regroupement des éleveurs de Saint-Louis euh, actuellement je profite profité de occasion pour nous parce que par le biais de cette dernière fois, nous avons fait sax def association yi mu des éleveurs de Saint-Louis foofu laa que exposé li que nous ma exposé que dama ñëwoon en tant que partenariat c'est-à-dire que dama ñëw venu ni man euh, champion yi dañu nous a di pour moi, champion yi damay ñëw ci concours yi mooy catégorie yi gars yi faral di gagné damay yëkkati sama chemise africain ma may leen concept bi foofu la jógee ma ni maanaam képp ku gañeeti dama lay sargal soo xoolee booy nekk si si si si si foire yi dañuy dekk nekk boo xam duñu moom sax xar yi mais dañuy sonn dañuy dugg concours xar bi su gañee ñuy sax gën a kontaan ma ni boo yooyee noonu maanaam champion bi maanaam foog nga fu wane leen ko dama ko def saint ñëw foire fii benn boet santek moom man ko ana chemise yi nga gañoon mu sama papa laa ko may ça m'a fait plaisir dem naa aussi Tivaouane te sax te faak ay booy bi ma ñëwee ñoom ñoo ma wanale ci biir booy yi naan kii de moo njëkk doon ku njëkk sagal jox xam suñu cër ndax man li chemise yooyu may maye du pour borom ki yar xar bi mais booy yoo xam ne maanaam ñoo nekk ci foire di sonn di fanaan ci foire parce que xam naa ko tey ñëw naa foire ci foire bi laa nekk ci foire bi laa nekk yëpp kon xam naa maanaam coono foire loolu nag le fait que ma bëggoon leen décorer moo tax ma ni pourquoi pas ma indi lii nii léegi mu nekk loo xam ne du yem si décoration kese mais damay indi samay bagage dafaale jaay bi comme que aussi si jaay lañu yëngu xam nga ñàkkunu sax sant yàlla ñooy nga am ay yenn clients yi mais comme que éleveur lañu dañuy par la force wane ni lii lu mën nekk la waaw parce que tey je pense que suñu ma jàpp ñoo ko njëkk def donc suñ ko defee gëm na ni nit tôt ou tard waaw dana ko defaat te nit ñi dañ yaakaar ni maanaam éleveurs yi maanaam dañoo xaw maanaam waaw ñàkk am xam-xam wala dañuy jàpp ni maanaam xar yi fi ñuy nekk maanaam du set wala du la moo tax mais lii nii soo ko defee nga ñëw jël sa salon équipé ko ba mu rafet dañuy wane ni maam nit ki tey fu mu waroon dem di ñëw ci jóge benn dëkk soit mu jóge Ziguinchor wala fu mënti jóge mën na ñëw ba ci biir foir bi yàqamti bëgg solu ñëw jënd solu waaw ñëw solu dal parce que tey xoolee dañuy jaay daal ñuy jaay yére te am na ñu bëri ñoom dañuy ñëw foire xamuñu ma xaw ma xamuñu ma woon man tamit xaw ma leen woon mais dañuy ñëw solo mu mel na dama leen jëlal mesure dugg sañse waaw loolu mooy loolu macha allah ba tey couloir de la mode nga indi lu am solo li nga xamante ni ñun éleveur yi rafetlu nañ ko bu baax a baax te defaloo ko sa bopp pour man axlu élevage nga ko defal parce que da nga ubbi yoon boo xamante ni ñu bari bàyyiwuñ ko woon xel tey euh, pourquoi pas ëllëg keneen nekk nii di jaay yére moo xam leneen leneen keneen indi ay bagage am ci biir foire def lii dafa am solo nga defaat beneen affaire bu am solo li nga def mu am solo mooy comme Mohamed Wan maa ngi ko doon wax léegi si micro central bi mu def lu am solo comme ni nga sentiré ni ñi nga xam ñoo yor xarité moom ñi la coono gu ñuy ñoom laa ko may ñu rafetlu ko donte ñoom lu ñu ci am bari mais dañoo kontaan yow nga njëkk ko def ndekete te maa ngi koy soog a yëg nii ba pare te il paraît que ne permettre laan nga ko fii nga xamante ni mooy salle rek pour ñi nga xamante ni tey ah, ñoo gagné nga xamante ni mooy trophée yi nga yëkkati service bu nekk ku ne xam ne ne yëre yi yombul nga am fierté pour may leen ko pour saaga leen ci kon loolu duñ def lu ludul di la ñaanal tamit li nga xamante ni moom nga def bay ñëw bi si biir foire yi suñu borom def nga ci yëg sa bopp bu baax a baax parce que soo ci yëgee sa bopp di gën di sawar ci yeneen foire yi te soo ci dina tax ñu ñi si gis suñu bopp kon éleveurs yi li ma leen di jox comme yóbbante couloir de la mode chaque foire nañuy bàyyi xel bu baax a baax di ñëw si stand bi ñëw ci salon bi di fi salu même ah, quoi pas jël numéro téléphone ëllëg ku waay soxla yaakaar naa ne foo mënti nek dina la mën a libérer li nga xamanteni mom nga soxla parce que ku xor xeetu ñaw yi da ngay xamné vraiment ay ñaw yu yu toy war la ay ñaw yu rafet la kon lolu nga xay di nga ñew indi ñu fi nga xamanteni moy mooy Saldek par rapport jafé jafé yi wala par rapport ak ni nga ñewé fi nga xamanteni moy mooy Saldek ndax yaa ngi gis sa bop bu baax baax quelque part éleveur yaa ngi soko commencer comprendre di ñew ou pas waaw waaw so xolé au début bi ñuy tambalé ñew amna ño xamné xeyna mëna leen jaaxal ndax duñ ko préparer uh-huh. ñu bari ño xam bi ñuy gën seen kër di ñew fi di foire xar moo leen fi indi donc suñu ñëwee loolu noonu mooy nekk loo xam ne moo jiitu mais da gis maanaam benn benn benn benn daanu wër wër ba au finish dañu mujj ñëw sa stand pour xool parce que yére yi maanaam ñooy jaay seen bopp waaw xëy na nag maanaam mën na bett nit ni nit nan la mën a jëlee ay yére dugal ko si biir ay xar mën na ko jaaxal mais tey soo ñëwee yére yi ñoo lay attiré te soo ñëwee da nga xam ne ñii dañuy def haute couture parce que ñun tey mën nañu wax maanaam suñu borom suturaal nañu ku ne la ñuy ñawal dañuy ñawal ministre dañuy ñawal député dañuy ñawal ay ay autorité dañuy ñawal manam élève yi étudiant yi ku nekk dañ koy ñawal waaw tay suñu boutique soon fa fekkon da ngay gis ni suñu photo ñun faral ñawal ba ci yeen jour professionnel yi à Saint-Louis da leen di ñawal waaw té couloir la mod nekkul marque boo xam ni dañuy boutique bi Saint-Louis la nekk rek que non man fi la tambalé won Dakar la tambalé won xostu bi may tambalé entreprendre cinq mille francs la tambalé entreprendre diko gëm di taxaw koloban di jaay ay ah, dal di ambulant bi ma demee dem dem dem à travers kolobaan boobu la daan nekk si laa xam sama yenn ay téyër ba yenn téyër yi laa jël ànd ak ñoom si liggéey bi ñii ma yóbbu leen dar ñii ma bàyyi leen Dakar comprendre bi ma demee nag ba war am boutique laa ni non comme fi ma dëkk Ndar la pourquoi pas ma yóbbu affaire yi Ndar ibbi foofu liggéey bi maanaam comme que amul woon Saint-Louis te Dakar xat na ñu def ko mais teewul nit ki foofu mënti nekk nga nekk Dakar nga nekk Thiès nga nekk sous région yëpp ñun mën lay dañ lay kiwal bañ na ba benn booy yu ñu bàyyi fii Dakar mhm. c'est parce que pour ñëw Dakar yi di gaaw la soo nu commandé dañ lay livré mais xëy na bi dafa nekk fële rek ndax suñu boutique soo xoolee suñu boutique mhm. dafa nekk Saint-Louis mais ba léegi tailleur teewul boutique ba dafa nekk fi mu nekk donc kon tailleur yi nekk kër ga ndax tailleur yi nekk fii Dakar lépp benn la l'essentiel da def sa commande gars yi foo ko bëggee gars yi livré la ko nga mën ko jot quoi sur mesure loolu nekk lu am solo ba pare gars yi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kon fi nga xamante ni mooy Ndar fa la bigit bi nekk mais Sénégal partout la ba pare li mu si bëggoon doole mooy tey lii éleveurs yi kenn waru leen si jiitu ndax tey ñun mënoon nañ jóge feneen mhm. ñëw pour def ko Tay suñu amé sañ-sañ ñew ci har, foire xar di fa exposé yére di fanaan ci bir foire di fi nek c'est parce que duñu bëgg xar manam depuis tout petit amuñu leneen lu dul xar xar rek lañu bëgg waaw manam bëgg-bëgg bobu non manam ñun tay li waral gëna gëna gën suñu téway fi tay manam connaissance bi rek daf ñu neex ndax da ngay gisante ak sa benen mbokk éleveur ngeen waxtaan ëlëk mëna soxla yow say xar comme mom mën nga soxla xaram waaw motax ñun ñi soxla foire kon pour wani rek éleveurs yi ñoom suñu jàppee marque bi mu doon seen marque maanaam seen njëriñ la ñun aussi suñu njëriñ la ndax ñun luñ ci mën di am mën mhm. nañ dox biir foire ba gis xar buñ si neex ñu waxaa ko ci jëlaale ko def loolu dal nañu ndar bi loolu noonu maanaam pour wan luñ ci mën di am mhm. mën na fi sax des soo moytu waaw waaw kon maanaam a jàpp daal macha allah kon éleveurs yi a ñuy dégg da ngeen war a jàpp ci couloir de la mode te xam ne yëf li seen yëf la éleveur la en tant que éleveur bi nga xamante ni nekk tailleur di ñaw ñaw bo xamante ni ñaw bu mucc ayib la ñaw qualité la ñaw boo foo da ngay am classe tout souvent luma ci gëna neex moy classe bi ak model bi ak numu raré quoi da ngay gis lool ci ci ci ñaw yi xawma nak ba xam experience bi fa nga ko jëlé kolobaan parcours bi nga def ak xam nga ba yex fi nga yex fi lool tamit nga gën ñu ci ñamal parce que lool dafa am solo ni ko gis amna parcours jige kolobaan def ambulant di rayante di fight di fight tay ba ex fi nga ex fi tay lool day bax nga wax ko ñi nga xamante ni jàpp nañ ne mënuñu déparé ci 2500 jàpp nañ ne mënuñu déparé ci 5000 ba am lu ñu war a am yow nga jaar foofu ba suñu borom def tey ji tey kenn du wax ci axlu élevage gi miin nga ñëpp xam ne ne couloir de la mort suñu waxee dinañ xam kan la li la may loolu ñamal ko gars tuuti rek waaw non li ma may loolu du leneen lu dul maanaam nit ki si ëpp loo mënti nekk da nga koy gëm rek ndax man tey comme tendance bi am muy tukki tukki neex na loolu man dama waroon voyager parce que man j'étais étudiant à l'UGB doon def droit des affaires bima waré voyage dem aux États-Unis lolou yag na depuis je pense c'était en 2018 2019 heure ma tenté du ñu may visa mais taxul ma xadi dama gëm ni xeyna suñu borom tuddul ma dem fofu ci la commencé fi di tambalé té bima tambalé japp mu ni won sax dama li dama ci wara a dugg waaw ndax dàll guma waron maye la ma jënd ko pour maye ko sama ben jigen gis ko fokkati ko ci man ni ma loko jëndé man ko 5000 mun ma li dama ko sama ci def 10000 ah. ko jënd dal bi commandé waat ma ñent dal té maa ngi dem fi ken 5000 kooku laa dem indilaat yeneen ñeent daal bi ma demee Saint-Louis ba may dem ma yóbbu naa daal bu ma waroon maye maye naa ko maye naa kooku yaayam daal ba jaay la fa ay daal bi ma ñibbisee nag comme maa ngi nekkoon ak samay tons di liggéey ak moom ci laa ne pourquoi pas ma entreprendre dem sama yëfu bopp ci laa daan dem Colobane di xoslu di dund ñaw xam nga di nekk ak yi di dund di nekk ci dàll yi su guddee ma nekk ci imagine dama daan dem kolobaan 10 heures suba man su maanaam ci roq yi may lijjantee samay bagage Colobane ak yeneen roq mhm. roq yëpp dagoo ko fësal mais su ma génnee sama kër 10 heures mën naa fa duggaat une heure du matin deux taluma maanaam neex na xaay sax dëkk-dëkk bi damay waaw waa damay tal faayet lijjanti ko xoom li ma bëgg xam nga ba tey yàlla suturaal nu may nu si boutique ñuy liggéey mu doon loo xam ni sañseeg solu dafa noon passion boo xam dafa jiitu si ñun mais xar yi da ko dominer waaw ndax xam ñëpp xam nañ moom xar moom soo nekkee moom dangay ngay dof moom moom ñoom dof loo noonu moom instant bi man damaa mujj sax dof man damaa mujj sax dof man loolu nekk lu am solo gars yi ngeen bàyyi ko xel ak à travers fi nga xam te ni mooy Ngalam TV mooy li ma leen wax rek saa su ne fii la lépp di leere saa su ne lu waay bëgg te mu jàll ak lu Sénégal gi yëpp waxtuma laat Sénégal mais àdduna day xam ne fii mooy couloir de la mode nekk marque bi nga xamante ni na ko éleveurs yi yëpp yëpp yëpp bàyyi xel ko ñëw ci foire macha en tant que éleveur exposé fi ñaw yu mel nii foo nekk ci Sénégal soo soxlaa soo ko woowee contacté ko daf lay libéré li nga xamante ni moom la la ñawal te soo ko doo ko sol mukk sa guru soo ko solee di nga xam ne sol parce que kii nga xamante ni mooy defar ñaw yi dafa parcours dafa xam lu rafet dafa xam modèle dafa xam li nga xam ne soo ko solee daf lay jàpp tey loolu noonu lan la su ma gisee genre modèle yi style bi près du looy jàng la wala looy toog di xalaat wala yàgg moom la. xam nga tey suñ borom su suturaalee nga bokk ngay liggéey ay ay ay ay ay ay ay booy yu la yu la yéene. dafa neex dafa neex. dafa neex gis nga man modèle yu bëre maanaam sama création la. mais lii ma sol du sama création. lii tey xaw moon ni sax booy suñ koy ñaw tissu bii lañ may ñawal ba siy def version rouge maanaam tendance am na rek ñu yónnee ma tey suba laa jot ñëw bi mu jógee Saint-Louis ma jël sol ma ñëw gis version rouge mu ànd ak drapeau bi pour wane leen maanaam ndam bi nii nii nii ñuy wuti muy coupe d'Afrique dafa soxal ñëpp ba soxal sama téere yooyu ñoo ngi naan Edouard waaw bañ baage xel bañ ni ma doo sol beneen couleur bu dul couleur Sénégal lii si coupe d'Afrique pour wane la rek liggéey bi maanaam équipe la man tey faay sama faay su fe su su am su ma amee faay mm-hmm. booy dañuy indiwaat seen faay mm-hmm. ñoom aussi tamit dañuy def des fois loo xam ne du ma neex dama naa la teppil yére bi waaw defaraatee ko nii mu leere ni maam lépp ci professionnalisme la waaw ndax maam du man rek couloir la moom dafa noonu loo xam dafa yaatu man maa ko maa ko kere mais am naa ay téer sama boutique mm-hmm. aussi am na ñeneen ñoo xam ne maanaam tey ñoo fa nekk ku si mel ne ma mbay doon jàmbaar dëgg tey maanaam su ma demee ba am sañ-sañ di génn di dem ay 10 jours duma nek fofu c'est parce que mom sama xel dafa dal ci mom dafa maté waaw ba paré tamit euh ma am tamit ño xam ño gérer sama page waaw ñu aljabar groupe ñom ño gérer sama lepp waaw waaw wax deug yalla lolo waral maam lolo tax équipe la équipe la nek am lo war ñom dañ waaw ñoom ñoo koy gérer té ku ci nek wax deug yalla surtout sama téyër ñom ci gor gor lu bu baax baax doon ay boy yu gëm seen bop ay xalé yu bëgg dara tamit quoi waaw ñu bëgg dara mo tax di ñaan rek di ñaan mais aussi tamit li ma bëggoon bala ngay ki moy man foog ma gërëmaat leen yéen waa Ngalam TV ndax lu waral loolu man dafa may neex ma dafa génn émission waaw parce que xam nga maanaam liñ naan li naan oto bi ne ci kanam du klaxonné ki ne ci ginnaaw yàlla dafa def nag yéen yéen a ngi ci kanam bu yàgg waaw moo tax ñun dañuy sawar ñëw ci genre émission yi di wane suñu bopp gars yi xam ne waaw ndax Ngalam TV moom mhm. waaw wax dëgg yàlla moom seen ay mbir moom waaw lépp lu ne la ñuy couvrir te ñoom it dañoo sopp ñu ngi fu ne match yi football yi lépp loo xam ne événement la ci Sénégal Ngalam da ciy dugal loxoom ba tax ne macha allah à travers le monde mën naa wax ne ñëpp xam nañ ko tamit ànd ak yow dañ ciy sawar parce que leader bu mel ni yow nekk jàmbaar yor équipe ci Sénégal di di def sa contribution ci li xam te ni mooy Sénégal dafa am solo lu mu dee dee yaa ngi employé ay nit yoo xam te ni ci Sénégal kon yow Sénégal dafa la amee njukkal parce que ñu mel ni yow dañoo baax ci dëkk comme ni nga ko waxee parcours bi metti na mais jaar xuus nga xuus nga ba met ja egsi fi nga war a fii ba am ñu nekkaat sa ginnaaw ba nga leen di sant fi nga xamante ni mooy si à travers Ngalam TV loolu dafa am solo la ñoo ne njiit su baaxee am naa yaakaar ñi sa ginnaaw dañ la yéene yaa ngi ne tey dañ la yéene mais ci yow la moo c'est la première fois ñu toog di waxtaan mais dégg naa la avant man yow ak yow ñuy toog kon loolu rek dafa am solo kon sa jëw moo rafet waxtaan naa seeg Adama Diouf démb barki démb jaay nga sama benn copain xawuma ko woon mu ne ma foire ba laa jënde dàll yi ma ne ku ko jaay mu ne couloir de la mode mu ne ma kooku nandite la ko lu tax ma ne ma gis nu ma solo nii rek mu woo ma nee na mu ñëw indi ko ba fii mu xool nga won ko ay kii fan mu ne la moom daal yi sax la bëgg nga mujj ko jaay dàll yi kon loolu fekkewu ma ko te wax nen ma ko kon mayaa bi mi ngi daw donte fii soo fi jaaroo ay millions ëllëg di ko fi am parce que loolu mu ngi daw te loolu rek moo am solo ñu lay ñaanal yaa xam li nga bëgg ci lii yaa na ko suñu borom defal ñun éleveurs yi moom kontaan nañ ci man avant micro bi éleveur laa maa ngi nële sama bokk sangi fële ba pare damaa bokk si ñu organiser foire bi ànd ak waa union des pro bokk ci ñi nga xamante ni ñooy communication et marketing ci foire bi gunge leen ban egsi fii kon su may am fierté waxtaan ak yow am fierté pour ñëw gën a def deugar lay suñu diggante yow nga xam du yam fi ak suba dañuy ñaan yalla ëlëk nga am ay champion gagner feulé sa espace concours bi def fé sa box salon bi nek fi te am nañ yaakaar inshallah allah loolu day am da nga ñëw rek daan ñi gëna a présenté waat jox leen adresse bi jox leen numéro téléphone bi pour képp ko xam ni soxla nga fi nga xamante ni mooy couloir de la mode ñu mëna contact ak yow. waaw man ku ma bëgg jot rek da ngay woté ci numéro 77 790 41 68 77 790 41 68. ou bien 77 393 86 59. aussi ñoo ngi am nañu ay ay ay kii Instagram page yi. ñoo ngi Instagram ñoo ngi Facebook ñoo ngi Snap xam nga ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi TikTok yooyu yëpp tamit ku ñu si contacter. maanaam ñu yore sama page ñoom ñoo lay tontu quoi waaw ñoo lay tontu mais whatsapp bi moom mooy 77 790 41 68. yéen a ko déggandoo moo ngi noonu képp ko bëgg a jot yooyu yëpp mën nga ko fa jaar mais képp ku ko bëgg jot tamit ci numéro boobu mu leen jox su ngeen ko woowee en direct si whatsapp bi dangeen ko jot. ci ñaw yi ngeen bëgg ak modèle yi ngeen bëgg ak ni ngeen ko bëggee mu defal leen ko ak fu ngeen mënti nekk nag ci Sénégal incha allah tey nga xalaatoon pour rek mën a tëj ak nga xamante ni ñooy tey ñu ngi lay dégg waaw mais li ma may mën a li may tëjee rek moom mooy gars yi nañ gën jàppaat nañu gën a gëm maam li ñu yor xam ne élevage pour nga maanaam dem ci wala nga sore ci fu mu nga bëgg ko passion bi dafa war a jiitu nga yéene sa li nga yéene sa bopp na nga yéene ko jaam wax dëgg yàlla pour nga sore sa élevage day jafe maanaam li ngay yow yéenal sa bopp ba pare yéene keneen maanaam suñu borom xol boobu lay fay ba comme li naan champion xeebul mbaar mën nga gis éleveur bu ndaw sax xolam rafet mu jur jur loo xam ne ku nekk dina ko bëgg a foqati ci moom donc gars yi nañ gën jàppante ba pare aussi comme yéen li ngeen li waa def dafa baax mooy maanaam boole lépp def ay association parce que aussi foire yi métti na tey ñii suñu organisé fii ñuy organisé fii ñuy gis ni xar yi mhm. duñu amati niveau sax parce que xar yi fu ne suñu fa bëggee dem concours dañuy rës stress yi maanaam day métti comme day métti si nit noonu lay métti ci xar yi mais gars yi su affaire yi di di booloo wala ñuy jël di am ay mois di toog di préparer gars yi daañu a préparer ba ku ñë génn dina gis ni ñii wax dëgg yàlla ay ndaanaanu xar di di leen sant di leen gërëm. macha allah tey ñuy sant bu baax a baax ki nga xamante ni mooy couloir de la mode macha allah tey euh, def fi li nga xamante ni am na solo waxtaan bi am na solo diisoo bi tamit am na solo mais tamit li nga xamante ni moom lay liggéey ci li nga xamante ni mooy ay xeetu ay ñaw nekk na ay ñaw yu doy yoo xamante ni na ngeen ko bàyyi xel mu wax yéen éleveurs yi na ngeen gën a def di booloo di fédérer li nga xamante ni mooy seen association pour a a xarit di mën a préparer a préparer ay modèles yu bees ndax su ngeen ko bëggee def a metti comme ni nga ko waxee am na ko bàyyi couloir de la mode man maay wax ak yeen du ay tiaxan te du ay fo na ngeen ko baye xel ci ay modèles yi rafet rafet ñun nak ñi wax suñu ma sha allah mu ñëw def lu taru vert zone rouge bi nga xamanteni am ñaari victoire yi nga xamanteni ma sha allah seet na suñu xol ñu ñaan nak suñu borom may ñu coupe bi encore muy deuxième coupe d'Afrique am nañ ci yaakar bu baaxa baax ak suñu lion yi yàlla na la ko suñu borom defal lan ngay sas suñu lion en plus ak ku bëgg ci rafet yi nga tay ni nga koy def manam dafa simple dañuy xamni li drapeau bi la ak nu mu simple nii macha allah si couloir de la mort. waaw mais lions yi moom lu leen sas mooy maanaam affaire ñu demee sans pression rek ndax soo xoolee qualité jeu bu ñu yore ak aussi équipe bu ñu yu yóbbu suñ ko gëmee bañ naagu rek coupe bi mën nañu ko indaar facilement ndax soo xoolee li mel na keroog match bi ñu joué muy contre Cameroun démb da ngay xool ni instant bii nii équipe bi fi nekk yëpp tour nation bi fi des. mais si si si si si si si bi bi ñuy proposé man mii sax maa leen mën waaw loolu moom léegi moo fi ne daal moo fi ne waaw ah, maanaam gars yi daal maanaam lu ñuy bàyyi xel ni maanaam lu ñu jox cër équipe bi mais xam ne ñoo mën équipe bi suñu leen joxee cër àndandoo doon benn rek incha allah dañuy dañuy am ndam dañuy am ndam quoi déglu leen ko ci couloir de la foofu la woon ak Ngalam TV macha allah mooy seen bu rëy rëy bi nga xamante ni macha allah tey lépp loo xamante ni bëgg nga ko fee jàllale rek soo wee Ngalam TV da ko fay jàllale ci ay image yu set leer ay question yu amul fenn macha allah fii la woon ak fi nga xamante ni mooy couloir de la xam naa ne après man balaa foire bee jeex di ma jox benn chemise ma sol ko publicité ñi nga xamante ni ñooy couloir de la mode kon mi ngi noonu ak kan mati si caméra sama caméraman bu ñaawul boobu nekk si kaw caméra bi nekk jigéen ju mën góor nag macha allah ok ciao.